gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu sant suñu bunt ci lislaam xaadim rasulullaay ñaanal suñu sëriñ suñu waajur sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te wér ba naa lii mu am ci yoon wi yëpp mu eggale ko ak jàmm sëriñ Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziar ci turu président de la république Macky Sall mu yebal ñu fi tey ci bés bu màgg bi ma ànd ci ak sa doom sa sët monsieur le ministre Cheikh Abdou Bali Mbacké di ministre conseiller à la présidence de la république ànd ci ak les conseils spéciaux Cheikh Mbacké Sakho di doom ci kër gi ak monsieur le maire Talla silla maire u Thiès di conseil spécial président de la république ànd ci ak jiili Mbacké di doom ci kër gi moom it di conseil spécial à la présidence mais ànd ci ak gouverneur la région de la Dakar euh, de de Diourbel góor gi mbay mi ngi ni toog sama wet moo commandement territorial bi adjoint préfet Mbacké ak adjoint sous préfet Ndam président yebal ñu pour ñu ñëw siyaare la ci bés bii bésu sëriñ Massamba Mbacké suñu maam ñu fekk fi nag njaboot gi yëpp sa jëwriñ bi sëñ Mahmadan dalal ñu teeru ñu indi ñu fii ci yow ah sëñ Cheikh sëñ Cheikh Mahmadan fekk fiit sa doom sa taalibe di kenn ci président Macky Sall muy le ministre ma Madické Niang Serigne Moustapha président mi ngi lay siyaare ci bés bi naam ni ko ma Madické waxee léegi sëñ Mahmadan sëñ Cheikh Mahmadan wax ko bés bi xam ne ne bésam la bésu Sénégal yëpp la bésu lislaam bi yëpp la ndax bésu sëñ Massamba ñàkk cee ñëw wóorut looloo tax président yebal ñu pour ñu ñëw siyaare si la ci turam waaye siyaare si aussi ci turu askanu Sénégal yëpp ci turu lislaam bi yëpp waaye ci turu tarixa bi yëpp président mi ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal yàlla wéral la yàggal la fi nga yàgg a jiite waa kër sëñ Massamba yëpp siyaare boobu mi ngi koy jàll jàllale ci sa rakk yi ak sa doom yi ak sa sët yi nekk ci kër gi yëpp di rafetlu seen taxawaay ci wetam li ma ko waxee léegi rek sëñ Massamba monsieur ministre d'État dund na ko léegi ak kenn la ci yoon wi ni ko ministre taa waxee rek sëñ bu mag bi moo ko commandel boppam képp kuy jàng xasida ci ñun murit amel nga delloo njukkal sëñ Massamba mhm. ndax su dul woon moom jàpp naa ne xëy na dañ lott ci mën koo jàng ni ñu koy jàngee tey mu nekk kenn koo xam ni ci yoon wi li ñuy wax suufi dëgg moom la dégg naa ci suma waajur mu ma waxam ne sëñ Massamba bi sëñ Touba di tekki lan mooy taalibe sëñ Massamba bokkoon na ci ñi bokkoon ak sëñ Modou Moustapha ak sañ Fallou loolu nag tegtal la koo xam ne nii yenn bokk waajur nga boole kook sa njabootu bopp firi luy taalibe te ñun murit amuñu lu dul taalibe loolu tegtal la mhm. donc sëñ Massamba képp kuy taalibe amel nga ko njukkal amel nga ko ñaan donc bésam bii di bés bu màgg ci yoon wi waaye di bés bu màgg ci lislaam moo tax président yebal ñu pour gannaaw bu mu siyaaree mu sàkku ñaan nga ñaanal ko bu baax a baax a baax ba naal yi mu am ci réew mi yëpp mu eggale ko ak jàmm waaye sàkku yit nga ñaan jàmm yokk ci réew mi jàll am na fi waaye yàlla na yokk nga ñaanal ko ñaanal askan wi yëpp ba lépp loo xam ne naal na ko ci yoon wi suñu borom eggale ko ak jàmm amuñ ci nag sikki sàkka ndax place bii palaasu ñaan la waaye bés bi it bésu ñaan la moo tax Mbàkke président yebal ñu délégation bi xam na ne ni sa kilifa sëñ Muntaxa joxe ndigal ne bu dara yëngu noonu nga ko defee moo tax nga yombale ko nii yombalal ñu ko yombal ko taalibe yi mhm. mi ngi sant bu baax a baax a baax di am yaakaar ne ñaan yi ñu fi ñaan suñu borom na ko nangu suñu réew yàlla yokk fi jàmm yokk fi dal ba yéene yi nga xam ne ñun ñëpp am nañ ko ci askan wi ñu mën ko eggale sëriñ bi daal loolu mooy kàddu yi ñu président yebaloon gannaaw bu mu la siyaaree siyaare waajuram sëriñ taxa sàkku ñaan di sant bu baax di ñaan yàlla bés bii ñu yàgg la fi fekk nga yàgg ko jiite ñu ñaan yàlla ñu fekk ko ay ati at ci kanam loolu daal le président waxoon lottu naa ci wax ko ni mu ko waxee woon waaye ci tënk rek kàddu yi kàddu siyaare la ci bés bi kàddu ñaan kàddu sàkku ñaan pour yàlla yokk jaamu cere bi jërëjëf Mbacke ñu ngi lay sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu